du installation forum de quartier bi kese dañu identifier ci biir quartier bi xale yi nga xam ne amuñu xëy ñu ànd ak ñoom seet ndax am nañu formation suñu amul formation ñu dugal leen former former leen jox leen ay diplôme tey jii ngi ci deux cent xale ci jeunes yo xamné dougal nañ len ci ay formation ñi am nañu sen diplôme formé nañ len ci ay hôtellerie restauration formé nañ len ci internet formé nañ len ci bureautique formé nañ leen ci yenen ñoñu tay ji ñi ngi am sen diplôme xëy bi tamit dañuy and ak ñom di ut xëy wala créer ay structure yo xamné ne dinañ ci mëna xey lolu moy solo forum de quartier yi su fekkee tamit créé ce forum de quartier nous wax en partenariat avec les délégués de quartier les du les imams du quartier les hommes d'église du quartier toutes les ressources du quartier Nous avons fait une réunion pour cette, nous la la prise en charge de notre quartier C'est l'initiative initiative bi nga nous avons émergence su ñu ñëwee au niveau local contacter les cellules de quartier dinañ xam ne wax dëgg yàlla ñoom tooguñu di xaar nguur bi rek. li nga xam tamit moy avantage yu bokk ci forum de quartier yi moy forum bu nekk dina porter un projet projet bobu inshallah allah su ko porter amna ñu ben commission bo xam moy évaluer projet bi su valider projet bi dinañ dajalé set naka lañuy financer projet bi donc loolu moy wéy ba nous avons ñu ñëw fi ci lëm gi muy ben quartier bo biscuiterie la bok ñu leen di financement moy enveloppe bi ñu joxé tey so xolé biscuiterie bi yëpp dinañ def ju jot financement enveloppe ay ñu dem congélateur